tubaarikàlla macha allah nii rek la kon ñu dugg moom moom tubaarikàlla fi nga xamante ni bu foog naa mooy gën a sensible ci moom te it fu koy neex lay doon waaye fuy sedd xolam lay doon sa diggante xaar mbay ma jaaga waaw loolu jumoo neex na ma sedd na sama xol ndax Sénégal dañuy faral naan doomu bàyyi jubóowuñu mm. mais man weer dinaa loolu xaar mbay ma jaago du sama doomu bàyyi sama yaay la oh. c'est ma ndax bi sama bàyyi di waaj génn àddina ci jamono yooyu 1978 mm-hmm. dafa def acte bu doy waar mm-hmm. moom xaar wax naa ko àdduna bi dégg nañ ko mm-hmm. xam nga xale du fàtte xale loo ko def ba muy gone rek du ko fàtte te du koy téye fekk sama bàyyi ndeysaan gaañu mu yóbbu ko màkk mu ñëw feebar gaañu amuñu lu dul ñaari kër yu taqaloo sam bàyyi njaboot lool nag bu dëj ba jotee mu def li ko war te moo yóbbu sama sama papa tam màkk nag moom waaw moo ko yóbbu màkk Aliñ Bay Paale député maire Tivaouane ni ko mm. lépp luy nga ne la maa ko def xalifa mm-hmm. généraux yi nekk Tivaouane temps yooyu sama turandoo moo nekk xalifa général mm-hmm. xaar ni leen papa ñaan naa leen sama baay bi bàyyi leen ma def lépp ndax baay bu baaxee mhm. doom da koy teral te comme que damaa gagné Onda bërki dem moo njaay rek mhm. ñu fay may million mhm. lépp laa ci bëgg a yamale ndax sam bàyyi jar na ko mooy ñoo fekk kër sa ndey toog sa bàyyi toog mun ne ñaar bet sa ndey wala sa bàyyi jënd te ci mën dërëm kooku soxlaa ñëpp ñàkk ñu suñu borom xaaral suñu waajur bu tedd woowu émission boobu nga xaaral ci lépp nga ko. bii miraas kër ga. ku hmm. ne may naa ko sama rek. Hmm. lu ko defoon ca dëkk. ak ku teewal ku ne xam na ni ci biir dëkk ba la nekk. te ku teewal riche na lool. waaw te bu gàmmu jotee ñëpp fa la ñuy daw lool. bu ba koog ñun. dem Màkka. dañu def ak sa benn xarit bu naan Malick Ndingue El Hadj Malick Ndingue. maa ngi koy ziare bu baax. ndax dem màkk mën na dénk kër mu daje xaar ni ko man ma jàngal la mu ko leen la yónni ci Mansour boo ko sama kër bàyyi dina ko defal kon xam nga ne doom bàyyi ñàkk ñaar koy def oh. te avant may defar kër ñëw kër gi dama ko dama ko sàkketoo rek moo na bàyyi ko te xaar mënoon di daal ci kër mu dem ñu jox ko appartement am ma defar kër loolu bu ñu ñëwee ñun doon jooyoon ak sama yaay kon nag def naa ba ma laajee ci xaar naa ko sama wax li ma koy ñaanal mooy gudd fan ak wér. ndeysaan ndax famille bi kenn jëkk moom. elle est exemplaire ñu baax nit ku yàq bokk ñun dañ koy jiitoo di ko sagoo avant ñu may xam man maa su bay ma jàngal. Mm. xaar mbay ma jàngal nga daan dégg. dëgg la ba muy siiw judduwuma. ndeysaan.

li duuf ci euh, ci bi yëpp mënuñu koo tudd. Hmm. li lay ñaanal daal mooy yàlla la fa la cat mbay ma jàngal ma sa joor. liñ lay ñaanal mooy yàlla la la cat man sax sama yaram daw na. ba ma mel ni kuy waaj a tuur xéwal. parce que doomu baay dëgg la. ah kay li muy wax lépp sama xel mu ngi nekk ci sama diggante ak Modou Mbaye Garmi. <laughs> très important. ndax ni mu mel a xaar rek noonu la Amadou Mbaye Garmi mel ak aji ngoy caali ñi jàkkaarloo gi yéen tubaarkàlla ci écran bi. kon tubaarkàlla doomu baay bu dégg lii boo àndul woon ak sa doomu baay demal nga ànd ak moom mm-hmm. bu ngeen juboowul woon dem leen ngeen juboo mm-hmm. bu ngeen xeexoon dem leen ngeen juboo mm-hmm. bu ngeen doon tibbantey tànk dem leen ngeen ànd bokk ndey bokk baay ahankay yaay yi liñ war a def def nañ ko bàyyi seen wàllu wéy na ba ñu dem àjjana kon yéen ñi fi dese te séntu asamaan jarta buuxante kenn ku ne di nga xool bu soobee yàlla li nga bëgg xool nanu ànd bokk ndey bokk bàyyi tubaarkàlla mhm, Mansour mhm. mon frère macha allah mhm. boo nee Mansour Mbaye rek ñu ne ak am personnalité ak am dignité ak a gëm boppam lu waral loolu xam nga soxna si li ne fang kenn du ko jeex yàlla xam nga lan la bëgg yàlla mm. lu ñu sàkk ñun ñëpp binduñu fulla ak fayda mhm. sa ndey mën na lu jur sa baay jur la wala fulla ak fayda nag borom mhm. te yàlla li yor di ko joxe mhm. daf koy yaay mayewu ko de suñu borom boo ko gëmee wóolu ko te mu doon dëgg ci yow il faut nga am il faut nga am parce que da xam ni nit mënul may moroomu nitam déedéet ku yaakaar ni nit mooy dundal nit te to trompe juum nga fi yàlla dong fi nekk mais joxal nit ñu nag cër ba mat. tey xamuloo tey ndax di nga am xamoo ndax ëllëg di nga ñàkk. Mm-hmm. ndax am ak ñàkk ànd dund ak dee ñoo ànd. Mm-hmm. fexeel nag ba def ci jamono ji loo xam ni ëllëg boo fi jugee mm-hmm. ñu ne gor piir dem na. dara gënta ñaaw sa ndey jur la ak sa baay ci farte yàlla sunna Muhammad nga ñàkkal sa bopp fayda ba ku gis ni kii doomu diw la ñu ne a ah, kii de warul woon a mel nii. ndi da ngay sagal sa ndey. Mm. sagal sa baay. Mm. sagal say mbokk. Mm. sagal say xarit te bañ doon samba ala. nit boo yoree ñaar fukki dërëm. fexeel ba sa mbokk yëpp ñam ci. Mm-hmm. fexeel ba sa njaboot gépp ñam ci. fexeel ba jàmburu yàlla yi doomu aadama yi ñam ci. loolu nag li koy indi. Mm-hmm. mooy nga juddu sonn. nga juddu sonn. xam nga boo juddee am taraanga. Mm-hmm. doo xam dara ndax teraanga rek moom nga xam. wallaay dëgg la mbay. waaye boo juddee bëgg a ndekki doo ndekki. wala nga judd bëgg a añ doo añ. wala nga bëgg a sol yére bu baax amoo ko. bu la yàlla dimbalee di nga xam sa tànk bii fan nga koy teg ndax ku ñëw di la wax soxla balaa sa sax sax di nga ko xam ndax yow danga nga daan am soxla di dem di ko waxi nit bu ñaanoo woon yàlla nga dem ñu gàntal la te buñ la gàntalee mu ñaaw. ndax oh. mën ngaa bàyyi say doom ca kër ga lekkuñu naanuñu. nga yaakaar ku mel ni ku ma wan mi ñu ko kër ga dara nekk fu mu la ma de maa ngi nii yoruma dara. di gën a jaaxle. Oh. bu la yàlla dimbalee nag nga am bu nit ñëwee ni cëpp sa kër. Mhm. ni la kër ga dara nekk fa même boo yoroon benn sax di nga ko jox. est que Persodora na ah ñoo dugg tuuti ci ah personnalité. ah oui man boo gisee ma nekk gentleman mooy man damaa sonn. nga eh, Barke Serigne Touba Mbacke man jëwër pire laa. waaw man du lu géwlu buuru de déedéet déedéet liggéey am taranga bokk ak jaamu yàlla yi imposé sama bopp yàlla dimbali ma ci nag mm-hmm. du ma jëw du ma fen du ma fa waxu jàmbur sama yoon ci kenn ñëpp laa yéen a jàmm mm. xam nga lu ko indi da ngay judd sonn ku sonnul doo xam àddina Zora na yaayam war a ma war a togg te ko xaaral ma yeggale fii parce que dafa ndax yaay ak papa fam lu ko jiitu muy Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. Seydina Mohamed fande na ndax yow mas ngaa toog fande yi. kañ. ñoo fande maanaam seen kër kenn dëpp fu cin laa wax. kenn lekkul kenn naan. mais boo demee ci kër jàmbur di lekk. waaw bi nag ay temps nag noonu la demoon dafa metti yonent bi jigéen na ko daan dimbali muy soxnaam. Oh. yonent bi yoru woon ñaar dërëmu salaamaaleykum. Mm-hmm. dërëm. daa moo tax yàlla jël ko def ko mu doon ngir ngi mu def hmm. xool bu rafet ak personnalité dignité gis nga nit ku digne am digne obstacle bu ñëw di ko gérer dara du la metti dara dootu la naqari ci sa àddina tey jotaay bi ñu toog pambay mii di xalam hmm. dama fekk ay temps nguy hmm. man lu ma wóorul duma ko wax li baayam dee dafa metti woon loolu ci moom tey bi ma toogee sama yaram dafa daw parce que oh. changement dafa am Pape am na yaram léegi taxaw na nekk na te tolloon na période boo xam ni boo ko xoolee da naan kii du pambay parce que dafa boole ñàkk baayam xamul fu muy jaar da nga may dëgg est que ba pare nekk xale mais yooyu nag boo ci jaarul woon oh. doo mën am assise doo mën a taxaw loolu moo waral na nga ni dégg ba dara mëntu laa jaaxal moo tax coono dafa baax ci nit mm-hmm. parce que day tax nga am yërmande mm-hmm. day tax lu waaye wax nga maîtriser ko mm-hmm. day tax kenn du la gis ci dara lu ñàkk fayda man ci loolu laa dund roy ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo tax sama tànk bi ma xam fi ma koy teg su ma xëyee liggéey ma am naa ko boo ko jaam ñi su ma xëyee dugg ci sama kër gi jaamu yàlla ak weer tëdd nelaw ba xëyaat dem liggéey donc laa fi nekkee du ma wax waxu jàmbur du ma dugg sama yoon nekkul te it nag vraiment maa ngi góorgóor ci sama diggante ak suñu borom ndax bu dem bu doon tey fa ma jaaroon ñaanu ma yàlla sa jaar dafa ci àdduna maa ngi soog a xam ne nag ndeketee ku ko la booy boo nga xam ko fi yàlla doo nga fi nekk lu waaye mel suñu borom la multimilliardaires yi nañu gëm ni yàlla la ku ñàkk na gëm ni yàlla la bu kenn ñànki na ñëpp xoolaat seen toogaay yi fexe marqué seen empreinte ci réew mi ngoy hmm. li ngay doon xale bu am woon personnalité boo ma invité du ma ñëw parce que Seydina Mohamed du ma dara nag mais maa moom sam bopp nag waaw oh. hmm. est-ce que dëgg ma wallaay naa la waaw oh. dafa naan loolu moo gën a metti hmm. ay lan nga dund ak nangam nangam man mburu mu wow poŋ ak suukar añee naa ko parce que alxuraan fanaane naa dox guddi ba fajar waxuma la dépense mais ndékki bu ma mën a jox sama njaboot pour suñu yeewoo parce que ndékki dañ koy fanaanoo borom kër gu amul ndékki doo nelaw guddi may taxawaalu ba dugg ci biir baar man pour xool rek ku ma mën a ñaan sama yaram daw ma ni mais man pour lan may dugg fii ngir am lu ma jox sama njaboot naa génn waaye dama di dox damay dox ba càgg rek for benn deux mille avant ñuy dévoiler xoolal loolu ñaari mille francs keroog mooy demee kër ga dama jàpp ñaari rakkat julli delawaat lépp yàlla te xam ni ndekete yàlla moom nit ñee sonn rek waaye yàlla heure bu naree ñëw kenn mun ci dara coon way na ko nee na wërsëg buy ñëw bu mu fallaay koy ñoddi akay dëgg xasee bay mais wéy ba na xam lu ko indi mooy xiñaan nit ko soxor hmm. wala nit kuy wala nafiq hmm. walla koo xam ni bugul kenn am jàmm hmm. kooku mooy lay wërsëg di jël di yóbbu mais nit ko baax bu xasee ba wërsëg dugg ci moom dootul dañati fekkee yow baax nga soxol bi laabir nga yéene ñëpp jàmm taraanga ngay deewaale soo moytuwul bu ñu lay suul ci bàmmeel ba sax dañ ci dañ lay sóoraale xaalis dina wadd ba ñu sóoraale la ko. tubaarkàlla macha allah. waaw